ñi nga xam na ne dañoo am ajo ajo bi rëy rëy lool walla ñuy dugg ci mbir bëgg yàlla sottal mbir mooma clémentine mooy orange bu xonq boobu clémentine moom ngay wut 368 moo tolloog sallallahu ala muhammad clémentine bu nekk nga jàng ci benn bismillahi rahmani rahim sallallahu ala muhammad teg ko ne ba 368 yépp mat boo paree nga wut ay xale yu góor ak xale yu jigéen mag du ci bokk nga leen koy sarax par trois nga koy saraxe par trois ba lépp man boo ko defee lépp loo doon mën a lijjanti si semaine boobu ak lu mu garaaw garaaw ak lu mu am doole doole doole yàlla dana la ko jox ci barkeb yeneen bi ndax sarax boobu mooy tax ak 368 sallallahu ala muhammad yi